枝が。うっすみだー yu ma ne la week-end bi ñu ñu investir bari na de maa la ko wax ma ne la Pierre Atepa Goudiaby eh, nee na daal mandat wu cinq ans juróomi at kese ak nag douze ministres kese ci bu gagné ah, a maa ko la opposition bi pare nañu laa la wax daal di organiser nag ay sa datal sal ngir nag bët rëy lool oser l'avenir yéen kaay groupe Futurs Médias gi ne Idrissa Seck day ak i candidature Karim Wade day ñu ngi xaar mu déposé kon tey jilee ma ne la minuit mu ah, ah, ci ay doomu aadama kon ci àll di centenaire gale kenn mës ta gis une marée verte professeur Issa Sall waaw ne gis nga mobilisation exceptionnelle bi ah mën naa diital parti bi ci nguur gi laa la wax l'observateur ne Ousmane Sonko day waaw waatee na Thiès ah. day opposition bi waaw xaw nañ koo rey surtout année dëgg la te xoolal ginnaaw na juróom benn fukk ak juróom ci ay engin blindé ante ëmët la Ndakaaru Njaay joob day waaw dama ne la ay caméra de surveillance lañ fi def eh way Samba waaw Macky Sall mi ne lan moo ko teree nelaw lan moo ko tiital ma walaay Mamadou Diop Decroix ne gis nga yàlla waaw dama ne la du jóge ci kaw asamaan daal di wàcc kon ci kaw suuf ngir ñëw na dimbali doomu aadama yi ne clé ngir ñu gàñe kon Macky Sall yàlla du def loolu déedéet kon nag ñin ñoo war a boole kon suñuy doole boole suñu xam-xam boole suñu alal boole suñu kattan ngir jàkkaarloo kon ak Macky Sall mi lee ay satatal sal day waaw nee na gis nga cër bu njëkk bu nguur war a def responsabilité bu njëkku état mooy jox askanam ñu lekk laa la wax waaye indépendance ba léegi ne leen day Sénégal a ngi dund xiif xiif rek professeur Issa Sall ne xanaa xamoo leen ne la ay doomu yoo xam ne kon nit ñi nañ a joxum ñuy dem di dugg biir Benno Bokk tey Macky Sall ci boppam jaare ko ci loxoom bii di Aly Ngouille waaw moo lànk naa di ci suuf ne du ma jox sama carte eh, yaa jum wala maa jum Karim Wade ne am te lañ ko defee ci ay millions millions sénégalais laa wax yor seen carte bañ leen koo jox Dakar Times ne lii dee tës dëgg la tës njiitum réew moo xam ni kon daa foqati nangu carte kenn koo xam ni kon ab candidat la ci élection présidentielle yi dama ne lii tës la Ndiaye day bloqué na Karim Wade di marti Italie Karim Wade na dem nag sàkku ngir kon Karim Wade ñu jox ko kon duplicataam carte d'identité les écoles yéene kaay ne en tout day waaw nee nañu dajale nañu un million de parrain laa la wax ngir seen candidat bi la di Karim Meïssa Wade moom Karim Meïssa Wade moomee eh, tribune yéene kaay nee na Karim Wade mi boo sàggane du bokk de marti Italie ay sa tatal sal day ci Sud Quotidien waaw ne gis nga nguuru Macky Sall gi lii muy maayanu sénégalais ci bopp sénégalais pour wan leen ñoom gañe ba pare président yiñ fi invité woon ak yooyee loolu la kay ndek Podor ga ca parce que Aïssata Tall Sall nee na yokkute mënu fee am yokkute goo gay bugaan gay dani ci tribune yéene kaay xam nga farata gi fi mu nekk nii mooy lana ah? ah. mooy jigéen ñi ah. a dégg bugaan gay dani ne man dee li ma leen xamal mooy gis ñi nga xam ne dañoo jël politique def ko métier waaw wallaay mënuñoo yóbbu Sénégal fenn laa nguuru Macky Sall gii bañ dikkee 2012 ak léegi ni lu tolloo vingt-cinq mille milliards la ilaha illallah daal dinañ ana lu mu jariñ dara ba dara booloo jeex laa la wax Amadou Ba ne déedéet d'accord ma de defar ba baax uh-huh. Amadou Ba ne waaw ba pare nag fekk fi kon ñuy jaxa-jaxatee xaalis bi yàqate loolee Macky ko fi dindi am na ñoo xam ne kon ay investisseur lañ da noon ñëw di indi seenu xaalis fii ci biir réew mi di investir dañoo dem ba mujj gi kon di daw ndax ragal Macky lam tooro barke rasulullaay Amadou Ba yemu ca ndaxte ministre bi nee na xoolal leen ma wàllum mbéy mi la président Macky Sall kon fi mu ko jëlee ak fi ko indi wàllum social bi moo waxaale mooy mbiram ministre bi ne 1362 kilomètres yoo xam ne day ay tali la ma koy ko fi def 216 virgule 5 kilomètres yoo xam ne day autoroute la ma koy ko fi Ba ne 2800 kilomètres yoo xam ne yoo xam ne Macky Sall yóbbu na fa courant ba kaddu yi nga xam ne moom laa fi yëkkati woon nag le 13 novembre bële waaw mais ñu baree bari comprendre ñu woon xamuñu woon fan laay wax parce que ca jamono joojee waaw lu toll ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeent 384 milliards mi ngi woon ci keesu nguur ku ma weeti demal bi CAO les seco yéene kaay ne en tout cas assemblée nationale gam doon waxee day waaw noo comme robinet mbedd xeexu robinet mbedd xuloowu robinet mbedd la fa xew ñaaw na lu toll ak fukki minute ak juróom yoo xam ne day député yaa ngay fëgg ca kaw taabal yi député yaa ngay saagante marte itali marte itali ana ah kay Moustapha Niass ci boppam laa lay wax ni dem na ba xamal opposition bi lé ne leen ay lâche ngeen daa waay père <laughs> waay père <laughs> wax day a waay Moustapha Niass yamu ca ndaxte Niass Koumba Abdallah nee na leen ay mala ngeen animaux fu tooy ngeen tak waay waaw xoolal ma Aïda Sow Diawara moom xameewul jant ak joor coowal gilet jaune ya xaw ca France Aïda Sow Diawara ndekete xamu ci dara wax fa ay tojange yoo xam ni kon maar day taali évidence yéene kay ne projet Rahma ba day waaw Marème Faye Sall day social am ba muy ah. koy institutionnaliser directeur info ne en ilaha illallah ma ne na fa les ko yéene kaay la mu waxal Marème Faye Sall ci lu baax ëpp na ma ne la Iran daw day ci direct info nee na Marème Faye Sall mi lée fa soxna Khadija taxawee woon yónent ba day salaam salaam fa la Marème Faye taxaw mat eh ne maa ko wax te gis nga Macky Sall mi ah su nekkaatoon gone day Marème Faye Sall lay takkaat jabar eh waay Samba Iran daw ne maa ko wax oustaz Beuze yemu ca parce que Iran daw nee na gis nga Sénégal gi malade boo fi gis am na kenn ku ko mën a faj famem waaye Sénégal kenn fajatul Marème Faye Sall rek ay faj ay waay Samba des ñëpp dëj rek lañ mën organiser ay dëj rek jaxal baas organiser ay dëj waaye réew mi daal Marème a fii faj mooy docteur bi waa waa Iran Ndaw ne maa ko wax oustaz Iran Ndaw yemu ca ndaxte nee na gis nga Marème Faye Sall mii walaay bu nekkul woon jàmbaar kon heure bi daw na yàgg na <laughs> sa mbaaxu waaye day du yàq sa mbaax dara olof Njaay ko wax te tonton ku dégg olof la xaayaar nag ku dégg séeréer kay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed ngeen jëf xeex daju baaxu ca l'observateur nañu moo taxit ku jëg politique gi taxaw nañu tem tàkku ba dëgër nàmm seen i ngànnaay jëm ci defante seen digg ak Macky Sall ci présidentielle yi yi biliyéene kay bi parti unité rassemblement du PUR dajale woon nañu mbooloo mu bari keroog ca centenaire ngir samp professeur Issa Sall def ko mburu parti bi ci wotey présidentielle yi 2019 yi Aïssata Tall Sall moom it borom Osez l'avenir mook ñi mu àndal Daniel Sorano Mamadou Diop Decroix borom AJ/PADS ma nga fa bu jëm PDS l'observateur nañu ci tànki dem alliance ak waa parti démocratique Sénégal ca la nekk lépp rek ngir daaneel nguurug Macky gi yi Idrissa Seck bu parti réew mi Alaaji Malick Gakou bu grand parti ak Bougane Gueye Dany bu sa bopp ñoom ñëpp journal bi nee nañu déposé nañu seen candidature Vox Populi mel ne ku naan ñu pur du ay caaxaan ne ci seen ndajem congrès d'investiture bi yoon keroog samedi wane nañu fa seen bopp bu baax a baax génnee fa seen doole ne le fa boole nañu ñaari nit a ngi yoo xam ne parti yi ñu jiite jiital nañu leen def leen seeni candidat mu di Aïssata Tall Sall ak Pierre Goudiaby Atepa ñoom ñaar ñëpp nag may ñu Macky Sall dara ci seen congrès d'investiture yi dañu ko mbii fa ba seen xol sedd samdek dimanche bi ñu génn anki dina jàppe ko week d'investiture PUR professeur Issa Sall bu PUR ñëw na ak programme bu mu tuddee PUR 100 Aïssata Tall Sall indi la société du progrès Pierre Goudiaby Atepa moom diggéene bu ñu ko falee président de la république mandat juróomi mooy am ci réew mi te gouvernement bi ministère ya cay nekk du weesu fukki ministre ak ñaar l'observateur nañu léegi nag mu des candidature Karim Wade waa Parti démocratique Sénégal nee nañu tey ji la koy déposé la tribune nañu ndax candidature d'identité amul carte électeur tey jii altine ji la ñu fas yi yónni ab huissier de justice ngir mu dem lijjantil Karim Wade këyitam yi secrétaire général adjoint bu parti démocratique Sénégal di Omar Sarr ni ñu ci biir l'observateur daañu booloo taxaw xeex ba candidature Karim Wade bi jàll Le Quotidien nañu Karim Wade ma ngay wut d'identité ba léegi réew mi Quotidien nañu te nag Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur la koy laaj sisir na waa CEDEAO ngir ñu ba léegi ñëwagul ci réew mi ma nga ci mi ngi toog ci xët mu droit moom Karim Wade nee na Macky Sall ni mu xañee ay millions yi millions yi sénégalais seen identité noonee la ma ko bëgg a xañee te Aly Ngouille Ndiaye la koy def loo journal Source A jóge ci loolee am beneen laaj bu mu samp ci xëtamu njëkk moo di Macky Sall lan moo ko teree nelaw ne ginnaaw juróom benn fukki otoy belende ak juróom yi mu andi woon ci réew mi léegi seetlu nañu ne dëkk bi foo xool rek ay caméra de surveillance la li may bëgg a wax wàllu finance la libération xamal nañu ne Amadou Ba ministre économie finance ak plan ma nga woon ca kanamu député keroog samedi ngir ñu ko doon wooteel bit bi ñuy laam-laamee ci situation économique bu Sénégal ministre Amadou Ba wax na ci lu wér péng ci assemblée nationale nee na ku yebu ne ko jaaraama ndax bi muy jot ci réew mi réew mu koom gi yàqu woon la fi fekk investisseurs yi kenn amatul woon confiance ci Sénégal baykat yi waaru loolee lépp Macky Sall moo ko lijjanti li mu fi waxoon moom Amadou Ba ba taxoon ñu ko doon ŋawtu ŋawtee ci réew mi Amadou Ba nee na kàddoom yooyee mu yëkkati woon fukki fan ak ñett ci weeru novembre ko nitilee baaxul nañu ko déggéet waxi na ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre lu fukk ak ñeent yoo xam ne Sénégal ko moom mi ngi woon ci compte état bi te loolee ku dem ca BCEAO yoo xam ne lu wér la li wér te wóor moo di première dame bu Sénégal di soxna Marème Sall jigéen gën ko ci mim réew dina jafe waxuma ko oustaz Iran Ndaw moo ko wax wax jaa ngi ci direct info ubbil yéenekaay bi ba ñuy amal ndajem lancement projet Rahma fa la waxee moom oustaz Iran Ndaw ne fa soxna Xadijatu féete woon Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam foofee la Marème Sall féete Macky Sall Iran Ndaw fii ci Sénégal Marème Faye Sall rek moo fi gis nit ku feebar mu faj ñi ci des ñëpp dañuy bàyyi ba nga dee ñu ñëw dëjël la ngénteel Maodo Malick mbay li woon keroog samedi journal Source A xëye na ko ak lu doy waar te yéeme lu fa amoon yëral xët mu njëkk journal bi Maodo Malick mbay njiital ANAMO moo doon ngénte jël doom ja tuddee ko ab sëfëram loolee nag mooy permis kap kaaraange dëgg waaw turandoo karo bu baax nu muy mel soo jëndee karo yu baax da ngay premier